waaw asalaamaaleykum euh, mbolo mi euh, waaw vraiment ñu ngi contane bu baax di nuyu presse bi nga xamni ni teew na tey fii ci euh, wax deug yalla di wax ni li du du du du gulet ci ñom ñun say su rek bu ñu tollé ci yi rek wax deug yalla ñom dinañ leen gis ñu am ci taxaway bu am solo waye di wax ni tay ñun ñoo woote won conférence de presse ndax ci weer yi ñu wésu def nañ fi ben conférence de presse don wax tolluwaayu liggéey bi don wax statistique yi nga xamanteni euh def nañ ko ci liggéey bi nga xamanteni bi mom lañ doon liggéey depuis at yi ñu euh yalla def ñu tek ci ay fan le 1er mai président de la république son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñëw Mbourkat bi mu ñewé après ci la dem dakkandi lepp lu nga xamanteni bi bii la fi ci Mbourkat ndax Mbourkat dafa am décret bo xamanteni bi décret bopam la décret Bobu, mu ngi hectares. Mmh. Euh, les 135 hectares nek fi ñu taxaw mmh. hectares bi euh, ci la mmh. zone à régulariser. fi ñu ñu zone d'extension. manam parce que li waral zone d'extension. Euh, parce que fi ñu dafa ñu 2006. té ñoñu tay ji ñom lañuy jëlé ci de leen recaser ci zone d'extension bi. Euh, wax dëgg yàlla bi arrêter arrêté depuis boobu ak léegi. ñun population Mbourkat dañoo nekk ci njaqare. nekk ci guddi gu bët setagul. ndax euh, li waral tey ji euh, Mbourkat ak déclassement. yàlla ak population Mbourkat la. ñoom ñoo ko ba am décret déclassement. waaye tey benen décret dafa génn ci kaw loolu ñu tuddee ko ville nouvelle décret bobu tay impacté population mbourkat ndax dégg nañ ci euh, ay jafé jafé yu fofu am té ñun suñu côté bi nga xamante ne bii fii la nekk amuñ amul amul benn jafé jafé ñuy ñaan le président de la république son excellence monsieur Bassirou euh, Diomaye Jaxer Fay mu lever ñu suñu suspension bi ndax euh, ñi fi am terrain ñu ngi fi jaxlé lool ñii jot nag ñii jotuñu day andi frustration boo xamante ni mm. frustration bu metti la mm-hmm. ndax fi ñu toll nii am na ñu bëri ñoo xamante ni bii tey jii fii ñu taxaw ni seen terrain yaa ngi fii te jotaguñu seen i këyit mm-hmm. am ñoo xamante ni bii tey jii sumboon nañu seen i tabax dale néeg mu des saal te tey jii ba tey mënuñoo fexe ba mën a yeggale tabax boobu bu yàlla ji tawee ñooñu dinañu am problème yu yu d'ailleurs dayo kon vraiment ñu jàppale ñu ñu lever ñu suspension bi ci fan aussi une euh, commission comité ad hoc mu Dakar fi invité collectif bi collectif bi dem vraiment nous déglu tatane taataan lepp vraiment dégluñu loolu ñu ngi jaajeufal euh, comité adop bi ñewoon yépp ñu ngi leen ci jaajeufal bu baax bi ñu aussi jël nañu information yi nekk ci site bi le lendemain ñëw nañ ci site bi aussi xol site bi def visite de site and ak ñun ñu dugg ci site bi dem ba nouvelle ville presque quinze heures lañ fi génnee mm-hmm. loolu yépp nak vraiment ñu ngi ci sant président de la république ci vigilance bi nga xamanteni bi def nako waye yit ci ñëw saytuat liggéey bi ci ñëw xoolaat liggéey bi loolu yep, vraiment amna ci. yaakaar dal amna mais bu président baralé loxom ngeen jël. ni waaw bu baralé loxom dinañu jël lool parce que fi ñi nga and ak say say say say say say naataango kii jot kayit ki jotul kayit mais loolu nan lay nduru fay metti parce que di nga dem ba say nawle doto ko mëna xol parce que loolu loolu loolu la dund fi ci kat nga am sa kayit aussi am sa autorisation de construire am sa lepp te mënoo fexe ba ba ba tabax sa kër wala nga tabax sa dëkkuwaay loolu aussi problème la xam nga nga xool tey mbuurkat ni mu bindoo amagul dara loo xamante ni bii tey ji euh, assainissement la wala dara te nawet bi di ñëw te amoo sécurité loolu dafay dafay dafay metti trop kon vraiment ñu ngi koy ñaan mu jàppale ñu lever suspension bi ñun ñu continuer suñu liggéey ndax wax dëgg yàlla nag sonn nañu euh, metti na ndax nit ñaa ngi ci jafe-jafe te lu mu métti métti ñun la yàlla suñu borom nattoo ñu nekk njiit dinañu toog dalal population bi euh, calmer ñëpp ànd ak ñëpp ci dal ah waaye wax dëgg yàlla nag di ko ñaan moom en tant que président de la république mu jàppale ñu. Euh, président Cissé ñu ngi wax ne yéen ñi euh, sooke woon na xeex bi. ci mhm. njëlbeen ba. Mhm. ëppoon ngeen ñaari junni. Mhm. jege ju ñetti junni ñu ngi wax ñaari junni jot nañ seen këyit ndax nañ koy firndeel. waaw parce que xam nga waaw waaw waaw dama koy dama koy dama koy parce que bi ñu bi ñu bi bi ñu defaree plan wu Mbourkat dañoo direction générale de l'urbanisme mu ñëw taal fi ay drone génne terrain yi bi mu terrain yi presque pratiquement plan wu Mbourkat bi yëpp mu ngi toll ci lots moom la ci biir lots yoyo les 2025 mille vingt cinq kayit seen kayit génn membre lañ ci collectif waaw waaw les 2025, parce que boo calculer ci bande bi commencé arrêté à 2 bi foofu le Mbour 4 commencé te dafa amoon ñu 2006 te dëkk ci kër. Mhm. ñooñu bu ñuy renouveler seen kayit du jaar ci collectif bi. Mhm. ñooñu domaine la def directement. moo pour nga mën a pour nga mën a xayma loolu dafay du du yomb. am ñoo xamni aussi dañoo amone kayitu 2006 té bi ñëwé ñëwee dañoo euh, tabax euh, tabax seen kër ñooñu ñu jël leen andi leen ci zone de recasement bi waaw mais 2025 ci seen kayit génn na ci les 2025 nak vingt am na ci lim bu toll ci 191 quatre vingt onze yoo xamante ni seen kayit pare na waaye bu leen woo du leen jot. waaw mais loolu waa domaine defar nañ ko benn liste ba andi ko jox ko collectif bi collectif bi di ko saytu daanaka ñu bëree bëri bëri identifié nañ leen ba xam nañu ñan lañu mais mënuñoo jot seen. kayit ñi jotagul seen kayit nag sa bokk si collectif bi. Euh, ñi jotagul seen kayit. voilà loolu moo waral nag ñuy ñaan le président de la république parce que nous ñooñu nous, fi nous, au niveau du domaine muy zone bi nous, nous, Nous fi nous, Nous ay ay mhm. nous, terrain nous, terrain nous, président accompagner aussi le président de la république. lépp loo nga xamante ni bii amoon nañ ko njàqare ci mbuurkat tey ñu ngi leen ciy xaar ñoom pour que ñun ñu jàppaleñ ci am na ñoo xam ne ay impacté la ñu woon amoon ay terrain fii ci jéggi bi yaakaar naa ni ñëpp xam nañ ko ñu amoon fi ay tool amoon fi ay pen amoon fi lépp ñii ñu jaay leen foofu mais ñu ñu nax nax leen jaay leen fa ñoo ñëpp ay ay ay ay ay kii la ñu ay ay victime la ñu ñooñu yëpp ñu ngi ci tàllal loxo la président de la république ndax bi ñu ñëwee aussi ci comité euh, ad bi laaj nañ ñu ñooñu ñëpp ba defar nañu rapport yooyu yëpp ba jox nañ leen ko. Mhm. kon côté boobu euh, nañu gën a dolli ñaan yi. Mhm. waaye daal à toute sincérité vraiment ñu ngi ñaan président de la république mu baral mhm. ñu lever suspension bi ñi ñu war a recaser te ñu amoon kayitu 2006 te jaaxle te nekkoon contentieux ñooñu it ñu jël leen yóbbu leen ci seen recasement ñi nga xamante ni ñoo nekk ci kër fii te jotaguñ seen terrain ñu jot seen terrain ñi fi am terrain nii ñu toj seen i kër. ndax fii fii amoon na fi ay nit ñoo xamante ni waroon nañoo tuxu seeni kër ba tàggu fa ñu dëkk xëy la boo matee ñu raser seen i kër néant zéro ba tey jii ñooñu ba tey jotaguñu seen i kayit ñooñu tey seen ñooñu ñëpp seen bët yaa ngi xonq cur kon côté boobu président dañ lay ñaan nga jàppale ñu ci ci ci ci mbuurkat ndax mbuurkat xeex ba am décret de classement mbuurkat moo xeex ba tey jii ñu naan mbuurkat àddina sépp dégg mbuurkat ñuy tudd nouvelle ville

dañuy ñaan président mu bàyyi ñu ñun ñu tabax suñuy kër nawet baa ngi ñëw képp ku ci taxaw yaa ngi am sa kër néegoo cee dëkk ndax taw bi jaan yaa ngi taxaw lépp a ngi taxaw ñu bëgg nag président de la république monsieur Diomaye Faye nañu dimbale may ñu ñu ñun ñi nga xam ne dañoo déclassé woon ñu bàyyi ñu ñu tabax suñuy kër ndax am nañu suñu autorisation ba pare ñoom parce que ñi dañoo sonn ci act bi taxaw nañ ci daw nañ ci ñun chaque jour dañu ñëw réunion di taxaw kaat jag mbuurkaat jotaat seen këyit mbuurkaat delluwaat mbuurkaat na mu meloon. parce que du du góor ñi rek ñoo nekk ci coono. du góor ñi man mii man tabax naa ba kule ñu toj ko. ak sama yeneen moroom di jaay taabal di kule ba ñu toj ko waa léegi nag ñun buñ ñu tojee léegi nan la ñuy def ak fan la ñuy dëkk danoo luye man dama luye samay moroom luye ñëpp a luye mbuurkaat sonn nañu. président dimbale ñu yaag sa premier ministre mu dimbale ñu jox ñu sunuy kër ñu dëkk ñun lu ñu moom ñun nan ñu ko jox ñu dëkkoo ko. parce que metti na tension bi kenn tëddatul nelaw ñi nga xam ne dañoo am terrain nii tëddatuñu nelaw ñi nga xam dañ leen a tojol tëddatuñu nelaw ñi nga xam ne tabax nañ ba pare wër dëkk ñu ne leen kenn du leen dëkk ñooñu kenn nenu tëddatul nelaw man de tëddatuma nelaw samay morom tëddatul nelaw Pape Cissé mi nga xam ne moo yore collectif bi tëddatul nelaw man la Kumba Ñang dëkk Mbour 1 am kër Mbour 4 gi tabax ko ba pare ñu toj ko nan ñu jàppale nekk conseiller municipal également responsable politique

parce que boo duggee mbuurkat nga xamante ne ñoo xeex ay ati at am na ñoo xamante ni comme ni ko sama frère Cissé waxee dañoo tabax bay waaju dëkk wala sax ba dëkk tey bu ñu tegee benn birig ñu ne leen arrêté leen waa DSCOS ñëw arrêté leen loolu nag bu mag a mag que ñi ngi jëm si nawet moo tax ñu bëgg président de la république ñu koy ñaan mbuurkat mu séparé kook nouvelle ville lépp loo xamante ni ZET la wala ZAR la mu delloo ko waa mbuurkat ak service technique ñu mën koo gérer pour loolu mu bañ a nekk problème parce que bu ñu boolee dossier bi yàgg te wax dëgg yàlla am na ñoo am na ñoo xamante ñi ngi biir mbuurkat te ñoom ñoo taxaw ñu déclassé ba léegi joxaguñ seen këyit mais dossier ZAR bi ak ZET bi na ko delloo waa mbuurkat ñu a gaaw parce bi mën a yàgg te nii bi yàgg na yoo xamante ne ba léegi ñu ngi toog di xaar seen këyit te loolu ko commission mënul liggéey mënul génne benn këyit ak ñi fi am tool

moy wa mbuurkaat yëpp seen kontaan na ci yow parce que ba nga defee déplacement fi nga déplacer déplacement bo xamanteni da nga bett ni ñëpp ñëw pour saytu dossier bi wa dafa am lo xamanteni ni ñu ngi koy ñaanale sax paradoxalement ñu ngi koy ñaanale du paradoxalement mais mu recevoir wa collectif mbuurkaat parce que amna lo xamanteni xamante lañ ko wax surtout quartier bi problème insécurité fi war am euh, njàng bi xale yi wara jangi parce que tay bu dé mbir mi soté gul amna xalé yo xamanteni ne bu déwénee bu ñu amee BFEM boo moytul dañ dox ay kilomètre kilomètre pour jangi amna ño xamanteni xamante ne duñ jàng parce que école amu fi donc dal ñi ngi ñaan président dal lool lañ koy ñaan